barke borom Touba ñeenti fa yi safar la ñuy waxtaane suñ Mbàkke Ibra bay taxub Seex Bamba ñeenti fan yi safara la ñuy waxtaane suñ Mbàkke Ibra bay taxub Seex Bamba mooy rakki Maamor Anta moom Maam Balla di seet ci maam Mahamta doon du cër ba mooy rakki Maamor Anta moom maam Balla di set ci maam Maram doon du cër ba sëñ Mbàkke Ibra nag amoon nag jagle di di xejju yàlla buur ba ak yónneen ba di ziyaare bokk yi nga xam ne ñoom lañ fekk si di waa kër Sëriñ Mbàkke Kajoor te ñu jox leen bis bi te mu mel ne wane nañ ci yitte ju kawe njort tomb bi nga xam na nag moom la sëriñ bi présenté léegi te ñu war cee waxtaan tomb bu am solo la bu mat di waxtaane la it liy wane soloom nag ku ne xam na ni jamono jii ñu nekk jamono ju bari ay woote la ci biir lislaam ñépp di ko teg bët ndax woote bu nekk gis nañ ko ci biir lislaam gis nañ ñoo xam ne bu ñuy julli bu ñuy tari alxuraan ci seen làkk bopp lañ koy taree gis nañ ñoo xam ne jëmmal nañ luy nuru kaaba di ko wër ci seenu dëkk di ko tudde aj mag gis nañ ñuy woote nubuwa kon woote yi bari na lool waaye li muy bari bari nag ci biir yoonu murit it bari na ay wootekat te li ëpp ci woote yi boo dee xool image bi ñuy wane day nekk lu xaw a doy waar ci lislaam rawatina ci biir njàngaleem Cheikhul Xadim radiallahu anhu ba tax na tomb bii ñu tànn di wa andir ashirataka al aqrabin danañ ci déggee ki war a woote nan la war a mel ak ku woote ngir lislaam nan la war a doxe ndax ku ne xam na ni woote moom bu fekkente ne lislaam rekk moo ko tax a jug am na ay charte yoo xam ne du ca mën a ñàkk su dee kii woote day woote ci turu lislaam buñ fàtte ni solo si nga xam ne tomb bi am na ko mooy bis bi yàlla sàkk ñu gis ci sunu njabootu bopp ñoo xam ne dañuy salfaañee lislaam wala ñuy salfaañee war may yàlla te doon nag niti mbooloo te doon niti mbooloo di ko askanale sëriñ bi ndax ku ne xam na ni benn woote boo xam ne sunu borom sellal na ko ba nga xam ne ñay askanale seen bopp ca woote ba ñépp mel nañu nañu war a mel amul woote bu mu mën a doon rek dana am ñu ca nekk te duñ mel nañ war a mel waaye nit ku mel na mu war ku melul na war a mel nag te yemale ko ci boppam kooku digganteem ak boroomam la moom la engagé waaye jël yenn image yi wala yenn wax yi di ko askanale nag liggéeyu Cheikhul Khadim loolu moom su boobaa képp koo xam ne ci njaboot gi la bokk am na sañ-sañu wax xalaatam ci loolu ak gis-gisam ak lam xam ci njàngaleem Cheikhul Khadim te mu wuuteeg loola mu indi ci ay leeral kon ñi nga xam ne ci seen bopp lañ nekk nuñ mën a mel seen digganteeg seen borom la waaye nag liggéeyu Serigne Touba bii moom ak woote yu bari yi nga xam ne mi ngi ci biir te li ca gën a doy waar nga xam ne moom mooy li gën a mat bàyyi xel jëmm yi nga xam ne léeg-léeg ñu toog ci barab ñi ñu àndal di leen. wooteel uluhiya ñu di ko nongo te nekk ci mbiir nag woote koo xam ne léppam tawhid la woon loola moom lu mat a la lu mat a reeteet la moo tax fan yi maa ngi gis benn vidéo moo xam ne maa ngi ciy ndokkeel Serigne Abdou Samad Mbacke moom Serigne Chouaib yaakaar naa ñu bari gis nañ ko kilifa gum toogal koo xam ne ab dongaama jug naan ko yàlla nga waaye da koo diglu ba mu wax ba noppi mu woo ko ba ci kanamam ne ko lii nga ko wax bu ëllëgee da ko layoo ndax yàlla kenn képp la yàlla moom même bu fekkonte ne jànguñ alquran ba xamewuñ ci yàlla jànguñ hadis ba xamewuñ ci yàlla li Cheikhul Xadim taalif te bis bu yàlla sàkk ñu di ko jàng mën nañ ci xamee bu baax sunu borom lasta bi walidin wa lasta bi walad yaa rabba kulla walidin wa ma walad allahu mawjudun bi gayri di wa innahu muujidu kulli muujadi kon yàlla moom kenn la kon képp kuñ koy jiiñ wala ñu dee ko wooyee nga ne cel umpule nga bu baax ki nga xam ne ci biiru liggéeyam nga nekk mu Cheikhul Khadim jëlale naa nag nga jël pouvoiram jël ay jëfam jël ay mayam di ko jox keneen ku dul moom yàlla loolu moo tax wooteeb islaam ñu wax ne ki koy def dafa am ay charte yu war a daje moom ci jëmmi boppam am na yu war a daje ci moom la ca jiitu mooy war naa doon koo xam ne day am waajtaay wu mat sënk woo xam ne jafe-jafe yi mu war a jànkonteel ci woote bi dana ko mën a muñ dana ko mën a yem ñaareel bi war naa doon koo xam ne it xam na bu baax alxuraan xam na bu baax hadis ndax kii woote ci lislaam ci ñaar yooyu rek la war a mën a sukkandiku ci la war a mën a dellu doo nit koo xam ne dafay xam war may doomu aadama ci biir war may doomu aadama jooji it dafay doon koo xam ne day xam war may ak mbokk ak mbokk maanaam fi ko sunu borom feeñal ñi mu bokkal bokk gi la muy woote bu mu tax mu xeeb leen bu mu tax mu ëppale leen boppam ndax loolu moo indi wa anzir ashirataka al aqrabin war naa doon koo xam ne it fi ko suñu borom feeñal ak ci barab bi muy dundee ñoom lu ñu soppeeku soppeeku moom barab waru ko mën a soppi aw nit waruñ ko mën a soppi waaye buy soppeeku nay soppeeku ci melokaan wa suñu borom bëgg mu soppeeku mu mel ni kon li suñ boroom jàngale ci alxuraan ci kooku nga xam ne day woote ci digganteem ak i bokkam mën nañ cee joxe misaal yoo xam ne day wane na nit kiy woote kat na tàmbulee ci ñi ko gën a jege moo indi wa andir ashirataka al aqrabin kooku sunu borom wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax boobu woote bi soreegul waaye sunu borom daf ko orienté ci mbokki boppam mu wóol leen boppam abu hurayra radiallahu anhu day wax ne dafa am bés am ku ñëw ci yonente bi alayhi salaatu salaam ne ko man de damaa am mbokk yoo xam ne dama leen di jog ñu di ma dagg may rafetal jëme ci ñoo ñuy ñaawal jëme ci man yonente bi alayhi salaatu salaam ne ko bu fekkente ne noonu nga noonu la demee sa digganteek ñoom jàppal ni jamono ju nekk yaa ngi leen di xëpp doom bu tàng jër mi ngi metti ci ñoom lool kon la ngay def bul ci dellu ginnaaw benn yoon loolu nag kon day wane ni kiy woote jëme ci yàlla ak lu mën a xew ay bokkam moom nañ bokk ci ñi nga xam ne ñoom la jiital ci woote boobu te buñ agsee ci li ñu gën a yitteel dëgg-dëgg ci Cheikhul Xadim radiallahu anhu digganteem ak bokkam ci wooteem bi dana ci feeñ wa andir ashirataka al aqrabin nag muy ab aaya ci alquran ulama yi dañuy wax ne invar moom deesu ko def illa fi taxwiif ki koy def moom day xuppe day tiitalaate kon sunu borom dana ko woon na wattandikuloo say mbokk na nga leen wattandikuloo na nga leen bàyyiloo xel woote bii nga xam ne yaa ngi koy woote lañ ca war a jëfe ñu jëfe ko lañ ca war a wattandiku ñu wattandiku wax nañ ni keroog bi aaya bi wàccee yonent bi alayhi salaatu salaam dafa dajale ay bokkam waxanteeg ñoom ne leen yaa ma'shara Quraysh ishtaraw anfusakum min allah laa ugni ankum min allahi shay'an jaay leen seen bopp yàlla te ne man kat bu ngeen jaayut seen bopp yàlla amul dara loo xam ne danaa ko man seen digganteeg seen borom di leen lim nag giir par giir di leen lim giir par giir am na riwaayaat yu bari yu ci wàcc bi yonente bi aleyhi salaatu salaam àggalee abu lahab wax ju ñaaw la ca teg ci la sunu borom wàcce saaru tabbat yada di ko ŋàññi di wax ay ñaawteefam ba tuddaale soxna si mu mel ne yonente bi aleyhi salaatu salaam ngir ñu waxtaane wa andir ashirataka laqrabin mënuñoo ñàkk a jaar ci moom suñuy jaar ci moom it dañ koy def ay étape bu njëkk bi mooy étape bu ku ne xam na ne yonente bi alayhi salaatu salaam moom la sunu boroom njëkk a waajal avant mu koy jox ndigal ci mu woote ndax njëkk risaala gi daf daan wéet ci xaaru Hiraa di wéetal yàlla di xalaat yàlla dafa jaamu yàlla léeg-léeg mu def fa weer dellu siwaat ba ni sunu boroom yabale sayyidina Jibril alayhi salaatu salaam mu fekk ko muy bidaayatul wahyi di ko jàngloo te xamul luy jàng mu jànkonteeg moom ba yonent bi tiit ci boppam doo ko tàmbulee jàng waaye bi mu fa jógee nag indil na ko ay jafe-jafe ci yaramam ak tiitaange mu mel ne ku ab liw dugg waaye bi mu dikkee ci kër gi ku ne xam na ne Sayyidatuna Khadija ni ko kutubu siira yi di nettalee moo def ay nattoom ba xam ne kii kat lii mu gis mooy Sayyiduna Jibril alayhi salaatu wasalaam ma daan dikkal yonent ya ko jiitu woon dal di dalal am daal di koy defal yonent bi daal di tàmbalee nag ay nattu ak i coono ak ay jafe-jafe yoo xam ne sunu borom a ngi koy waajal ngir li ci kanam mooy gën a diis lii nga xam ne moom lay dajal ci Seydina Jibril alayhi salaatu wasalaam bi mu jógee ci étape boobu it ba agsi ci étape bu wa andir ashirataka al-aqrabin ku ne xam na ni moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu leen dajalee ba woo leen. mbokki mboppam yi ko gën a jege dañoo commencé di ko fitnaal boole kook nag di ko fexeel ba am na bis boo xam ne dañoo dajaloo ñëw ci Abu Talib mi nga xam ne mooy bàyyi taxam moo yor yonente bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko dañoo bëgg nga wax ci sa doomi mbokk mii ndax kat mi ngi wax nàngam ak nàngam mi ngi wax ci sunu baay yi nàngam mi ngi wax ci sunu yàlla yi nàngam te loolu mënatuñu ko muñ bi ñu génnee Abu Talib daal di woo yonante bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ah yow kat sa woote bii damaa bëggoon nga noppal ci sa bopp te noppal ma te bañ ma cee yan lu ma attanut ndax say bokk ñëw nañ fi wax nañ nangam ak nangam ak nangam yonente bi salaat salaatu wasalaam xalaat ni Abu Talib dafa commencé néew doole ci protéger gi mu koy protéger ndax ñu ngi teg pression ci kawam yonente bi ne ko maa ngi ne génneel ci yàlla ni ñoo ñii fi bàyyi ko di samay bokk bu ñu faboon jant bi teg ko ci sama loxol ndeyjoor fab weer bi teg ko ci sama loxol càmmooñ ngir ma ngir bëgg ma bàyyi lii ma nekk duma ko bàyyi ba ba ma yàlla di dimbali wala ma dee wute dal di jooy nag naka mu jooy wan ginnaaw abu taalib abu taalib dal di koy wooluwaat mu dellu si mu ne ko wéyal te loo bëgg a wax wax ko nekkal ci li nga bëgg a nekk yonent bi dal di continuer nag nekk ci ab wooteem ci biiri bokkam waaye teewul mi ngi nëbbu woote bi ndax amaguñ doole ngir mën koo fesal ba ñu weesu étape boobu àgg ci étape fas fasda bi ma tuumaru wa arid an al mushrikin fekk booba ñu ngi daan laqatu ci daarul arxam fa leen daan jaamoo yàlla dawuñ ko fesal waaye keroog bi ko sunu borom subhanahu wa taala joxee ndigal nag ci lañ doog a génn fesal lépp loo xam ne ña ngi ko doon def ci xeeti ibaadaat kon am na ay étapes yu ko sunu borom jaarale mu doog a agsi fii mu agsi wa andir ashirataka al aqrabina googu nag dañu gis ne Cheikhul Xadim radiyallahu anhu sunu borom dafa nuróole mbiram ak mbirum yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci anam yu baree bare bokk na ca étape yi nga xam ne ci la yonente bi jaar ci ay wooteem sëriñ bi jaar na ci étape yu mel noonu ndax ku ne xam na ni ak njëlbeenam ak njëlbeenam noonu yonente bi alayhi salaatu wasalaam daan def di dem ci àll bi di wéetal yàlla di xalaat sëriñ bi ak njëlbeenam histoire saxal na ni daana génn du ñu xam fu mu dem ne ci di wéetal boroomam buñ toogee ba yàgg ñu wëri ko ba gis ko indiwaat yeesalaatal ko ay yéeram bàyyiwaat ko mu dellu loolu ci njëlbeenu sëriñ bi histoire saxal na lool waaye teewul nag ginnaaw bi nga xamee ni sëriñ Mamour Anta Sali génn na àdduna taxawaay bi nga xam ne sëriñ bi taxaw na ko ci digganteem ak i bokkam mën nañoo jàppe loolu état bam bu njëkk ci ab wooteem ndax foofu la waajale boppam ginnaaw bi ko suñ boroom waajalee wàccaay wu mat sëkk ngir mu mën a yanu yan bi nga xam ne moom la ko sunu boroom di yan ndax sëriñ bi moo waxal boppam ni diirub bi may ndaw mësumaa jug ci di koo xam yàlla diirub sama ndaw mësumaa jug ci di sàkkoo xam yàlla ak di ko wër ak di ko gëstu mboolem boroom xam-xam yi wëndeelu naa ci seen biir ànd ak sama yéene ak samay jëf ak samay wax ngir rek bañ a sànq sama sama sama dund ci ab coono dem naa nag ba bi mu àggee ci atum ay sa Chine ci la doogo nag woote wooteem bu màgg boobu boo demee ci xasida ga sëriñ baa ngi waxal boppam ni walam azal munzu aqaltu taaliba maarifata al ilahi jalla taiba fa jultu bayna al ulama wal awliya bi niyati wa amali wa xawliya kay a yadiia umri ataaba li husni zannin qaada lihtisaaba hatta nsaraftu aama aysashin ila xidmati xayri alaalamina dil ila kon ak njëlbeenam gépp gëstu ak wër yàlla ci boroom xam-xam yi ak nit yàlla yi nee ci la ko jeexal ngir bañ a sànq ak dundam bi demee ba sëriñ Mamour Anta Sali jóge fi muy état bu ñaareel bi ci la sëriñ bi nag doog ko def première déclaration dajale njaboot gépp ndax njëkk demuk sëriñ Mamour Anta sëriñ baa ngi doon jàngale waaye ku ne xam na ni bokk yi nga xam ne ñoom la nekkaloon ci biir daara ji sëriñ bi daana leen gaaral aw doxinam ak li ci kanamam ak li mu ñi muy jàngal noonu ko boroom xam-xam yi di nettalee nga xam ne léeg-léeg muy toppal nit alliwo di ko gaaral nag yoo xam ne miinuñ ko woon ndax ku jàng alxuraan ba mokkal ko di bett nga ko toppal ne ko lii kat am na solo lool waaye fexe nag ba xalima ak sunu borom bi buy bind ci arash na xalima ga di yëngatoo nga di ko dégg moo ëpp solo lii booba mi ngi leen di gaaral li nga xam ne ci la jëm sunu borom waajal na ko ba wàccaa yu noppi ginnaaw bi sëriñ Mamour Anta Sali jógee nag mu def déclaration boobu daal di woote ca la waxee ne képp koo xam ne li ma tax a jug moo la tax a jug mën ngaa ñëw nu ànd koo xam ne nag njàngum kese rek moo la tax a jug mën ngaa seete feneen foo ko amee li ëppoon ci mbooloo mi dem ña gën a néew ñëw ànd ak sëriñ bi mu sax foofee ab diir boo xam ne keroog ba mu fay jógee ci wa andir ashirataka al-aqrabin ak ni sëriñ bi doon jëflanteeg bokk yi nga xam ne bi mu wootee ay magam ay rakkam ñëw nañu ay doomi bokkam ñëw nañu ay doomi bàjjanam ñëw nañu ay nijaayam ñëw nañu ñeneen ñu bokkal noo xam ne dafa bokk ak ñoom ci yeneen anam it wuy si nañu waaye keroog bi muy jógee Mbàkke Kajoor di sanc si di ñëw Mbàkke Bawal ku ne xam na ni way juróom wi nga xam ne moom lañu tuddee bis bii te sëriñ Saalihu Mbàkke radiyallahu anhu daan wax ne sëriñ bi kat saa bu masaan ne sama sëriñ mi ci tudd mi ngi ci jublu sëriñ Mamor sëriñ mamoor Anta Sali waaye saa bu ne sama baay nag mi ngi ci jublu sëriñ Mbàkke Kajoor keroog bi muy jógee Mbàkke Bari bi muy jógee Mbàkke Kajoor war a ñëw Mbàkke Bawal moom la jëli jox ko dëkk boobe mu yilif ko moom ko ndax moom mooy ki nga xam ne moo waroon a yilif Mbàkke Bawal kon loolu wane na bàyyi xel bu mu doon bàyyi xel ay bokkam ànd ak nag li yàlla def ci moom lépp bi mu jógee foofu yi ñëw Mbàkke Bawal dafa ñëw ngir wan leen ne am na lu mu indi am na lu ko yàlla jox am na mission bu ko suñ borom di doxloo waaye jaar si na ay bokkam ngir ñu njëkk ñu bokk ci njëkk a loolu donte bi mu ñëwee Mbàkke it ay wuute am na digganteem ak ñi fa fekk te wuute yi ni ko boroom xam-xam yi di rafetale ñenn ci ñi fekk si ñoom liñ gis mooy seen mbokk ñëw moo xam ne lam doon ci ñoom ci ak bokk moom lañ bëgg a jàpp jëflanteek moom ca loola waaye donga yi mu àndal ñëwit nga xam ne pas-pas lañ toppee sëriñ bi ñoom it mënuñoo gis kuy jàppee sëriñ bi loolu liñ gis rek mooy liñ bëgg liñ jàppe sëriñ bi kuy jàpp sëriñ bi na ko jàppe noonu te mooy ak taalibe loolu rek mooy indi woon réer wi sëriñ ba sax fa diir bu gàtt doog a jóge foofu nag dem sanc daaru salaam sancu daaru salaam ak Touba mën nañoo wax ne loolu mooy état bam bu mujj ci woote bi nga xam ne dafa matale àdduna bépp bi mu sancee ñaari barab yooyu fekk la ko jiitu ku ne xam na ni am na abiyaat yoo xam ne sëriñ bi liggéey na ko boroom xam-xam yi nag wuute nañ ci yan jamono la ko taalif ak fan la ko taalife loolu mooy delloosiwaat njëlbeenam gi nga xam ne coono bu nekk daj na ko bët bu nekk xool nañ ko ko lañ doon wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam te alxuraan di ko jàngale jàpp ne am xelam dafa matut wala dafa wéré di sëriñ bi jaarale nañ ko foofu digganteem ak i bokkam loolu moo waraloon mu taalif xaalu safihun li sarfi anhumu basari wa raxbati an sabil isaani fii ba xasida gi àgg wax nañ ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci ab wooteem ci njëlbeenam boo dee xool sëriñ bi répétel nañu loolu ci ay bayitam yoo xam ne jaarale nañ ko foofu ci digganteem ak ñi nga xam ne ñoom la doon woo jëmale ci seen borom subhaanahu wa taala mu mel ne loolu mu leen tontu ci biir xasida gi moom sëriñ bi lim tontu bokk yi la yonent bi alayhi salaatu salaam tontu woon ay bokkam ci ne leen ishtaraw anfusakum min allah laa ugni ankum min allahi shay'an day méngoo ak li sëriñ bi tontu ay bokkam ci xasida gi ci ne leen maa li gadan hiina asrailu yaqbidu nii ruuhi nasirun siwa mawlaaya fi l man kat sakkuuma ndimbal ci kenn ku dul yàlla la jiitu mooy maa siwa allahi ida ma lahdu gayyaba nii wa jaani l malakaanu addahra min wasari saa bu ma demee ba ñaari malaayka yi di ma dikkal muy munkar ak nakiir amul kenn ku ma yaakaar ku dul yàlla la ko jiitu mooy in kaana in kaana aybiya zuhdun fi hutaamihimu fa zaaka aybun nafisun laysa yuxnini nga xam ne yañ ko doon xeebe ak yañ ko doon ŋàññee yépp sëriñ bi wan na leen ne amu ci soxla waaye nag bokk yi nga xam ne mi ngi leen di woo bu ñu wuyusee seen bopp bu ñu wuyusi moom digganteem ak boroomam yaakaaru ci kenn ku dul yàlla loolu nag danañu indi ci ñu indi ay nettali yoo xam ne yu histoire saxal la wane ne sëriñ bi bi mu wootee njëkk naa woo ay bokkam waaye nag li mu yor ak bokk ma yewu ko njëkk naa woo ay bokkam waaye li mu yor doon bokk taxu cee jot loolu waxante gam waxante woon nag sëriñ ma roqee Bousso sëriñ ma sàmba sëriñ Fallilou ca Mbàkke ca Mbàkke Bari loola day dëggal ne kon sunu boroom jox na ko loo xam ne adduna bépp ci bokk yam loo ko jege-jege te jaayante wa jébbal ko sa bopp du tax nga mën cee jot loola nag mooy lam tënkoo ci ne leen duma bàyyi kenn duma maami kenn duma nijaayi kenn du bàyyi kenn duma ma magi kenn du ma nijaayi kenn loolu nag dégg yi gën a rafet ci dégg yi nga xam ne boroom xam-xam yi déggee nañ ko ci mooy lim yor doon doon doom taxu cee jot lim yor doon jarbaat taxu cee jot lim doon rakk taxu cee jot ndax sëriñ bi ko fonkoon ak bokk la ba nga xam ne nee wax naa léegi sëriñ Saalihu radiyallahu anhu nee na bu ma sànnee bàyyi rek mu ngi ci jublu sëriñ Mbàkke Kajoor ñi nga xam ne dafa bokk ak ñoom te daan leen bind ay leetar yi kenn ku nekk daf daan bànneexoo cër ba nga xam ne moom nga am ci moom jaar ci ciir ba directement sama yi bàjjan sama doomi nijaay sama yi bay tax kon cër yooyu sëriñ bi nangu woon na ko waaye li mu yor nag doon doom wala doon mag wala doon jarbaat taxu cee jot ñooña ca la ñu jaayante jébbal ko seen bopp la mu yor sëriñ Fallilou gën a fisal ak jaayanteem bind ay abiyatam jaay ak njuréelam jënde ko ak taalibe ña ca des it noonee lañ ko defee jaayanteeg sëriñ bi jébbal ku seen lépp ngir mën a jot ci li li nga xam ne sunu borom da ko koo jox ta mu mel na la sunu borom joxoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne gëm nangoo topp tënku ci sart yi mooy tax nga mën cee jariñ sëriñ bi dafa wax ne bokk na ci kiimaani yonente bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci ay kiimaanam moom mii nga xam ne moo koy lëggéeyal di ab xaadimam bégal bu mu ko bégal ci ne ko fas da la ko suñu borom waxoon subhaanahu wa te mooy lëggéey bi na ko béral na ko fésal sëriñ bi wax ne wa min ajaaib ibni abdillahi salla alayhi bi salaamillahi baaqin adaa ardahu fi lawliya ila alxiyaamati wa kullun waliya sunnatahu wasaanahu an bidaci tabshiruhu xadimahu bi fasdaci amarahu salla alayhi llahu fi laali wa saxbi wa man walaahu bi an yucallima almuridina wa man yaqbalu minhu nusxa min ahli saman wa annahu awsalahu an taxliya li rabbihi mubashiran bi taxliya kon wane na ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam jox na ko ndigal ci mu fésal ab wooteem ci biiri bokkam ci biir aw nitam waaye ci biir képp koo xam ne ci kanam képp koo xam ne nangu nga ab laabireem bu dee nag ñi nga xam ne dañoo aju woon ci moom ak i bokkam ñi nga xam ne noonu la sëriñ bi doon jëflante ak ñoom xam nañ ni sëriñ bi ab wooteem mi ngi ko feeñal ci biir i mbokkam ba muy woote ay bàyyi taxam ñi ngi ci kanamam ba muy woote ay doomi baayam ñi ngi ci kanamam waaye nag sunu boroom tànnal ko ca ñam ko tànnal boole kook ñam ko booleel ci waa jamonoom ñu wuy si ab wooteem ànd ak moom teewul ñoom ñépp kenn ku ci nekk sëriñ bi di sàmmoonte waruma ak teggiin sa diggante ak moom waaye rawatina ñi nga xam ne ay mbokki boppam la moom Cheikhul Khadim radiyallahu anhu wax na ci masaalik luy jëmmal loolu te li ko firndeel day wax ne al adaba al adaba summa al adaba wa huwa an taburra umman wa aba teggin ba teggin jeex mooy nga topp sa ñaari waajur wal amma wal ammata wal axal kabir wa cheikha inna cheikha bil birri jadid nee na teggin dëgg mooy nga topp sa ñaari waaju waaye teggin dëgg mooy nga jox worma say baay ak say bàjjan ak say bokk ñu la wër ñëpp kon sëriñ bi ma ci nga xam ne mi ngi ko doon joxee day koo xam ne la muy digal nit ñi moo leen cee jiitu lépp lu mas a digal nit ñi ci ñu def ko ci lu baax fekk na mu jiitu leen ci ba noppi loolu nag feeñ na ci digganteem ak ñi nga xam ne dafa bokkoon ak ñoom sëriñ Mamour Anta te ñu féete ko ak mag ku mel ne sëriñ Mamour Diarra wax nañ ni fu mu mas a tase ak Cheikhul Khadim kenn ku nekk ci ñoom ñaar sëriñ bi dana sàmmonteeg moom <coughs> war ma ci dox digganteem ak moom ngir ne magam la te loolu la ko sharia digal kilifaam la ci wet googu waaye sëriñ Mamour Diarra yi dana sàmmonteeg sëriñ bi ci wàllu xaqiqa cër bi nga xam ne suñu borom def na ko ci moom ba wax nañ ni buñ masaan a daje danañu teg lawtu seen diggante kenn du ci nangoo ngir kenn ku nekk dafay wormaal moroomam ngir lim doon ci moom ñi nga xam ne it dafa bokk ak ñoom te féete leen mag noonu la leen joxe woon noonu la leen wóoloo woon ci lépp kon mën nañoo wax ne ni suñ boroom waajale yonent bi alayhi salaatu salaam waajal jëmmam ba mu nekk saalix doo ko nekk muslix te mbooleem anbiya yi ku fi yàlla mas a yónni ci loolu la yónni mooy nga defar diggante ña la yàlla yónni ak seen borom jëli leen ca la ñu nekkoon boole leen ak seen borom subhanahu wa taala yonent bi alayhi salaatu salaam sunu borom waajal ko ci loolu waajal boppam waajal ay bokkam ñam doon woo wuy si ko mu defar leen seen diggante ak seen borom Cheikhul Khadim radiallahu anhu it noonu la suñu boroom dogale mu woote ci biiri bokkam ci jamono bu mett ci jamono bu doy waar waaye yàlla tànnal ko ca ña ànd ak moom mu fexe ba lañ ko toppe woon ci seen diggante ak seen borom sëriñ bi wan leen ca lu leen doy sëkk ña ko wuy si it te nga xam ne duñ ay bokkam waaye bokki lislaamam lañ kazalika bokki boppam yooyu kii ñu tudde bis bi di sëriñ Mbàkke Kajoor kenn la woon ci ñoom relation bi doxoon digganteem ak sëriñ bi ak ni sëriñ bi daan jëflanteeg moom loola xay na docteur sëriñ Xaadim si la dina ci ñëw waaye doy na ci firnde muy sëriñ bi considéré ko muy waajuram di diisoog moom jëlit ci ak njabootam ñoo xam ne da na boole ci waa këram jàpp naa ne wax nañ ni moom sëriñ bi dëkkoo woon na ci waa këram lu mat ñeent loolu nag am na lu muy jëmmal am na lu muy firndeel mu yëkkati it ak njabootam jébbal sëriñ bi ñu doon ay dongaam ni ko ñëpp defe fa su sëriñ bi nekkit mu fekk ko fa gane si ko fa fekk si ko Touba fekk ko ci yéen Jolof mu mel ne kon am na lu doxoon seen diggante donte waajuram la moom teel naa xam sëriñ bi teel na koo nangul teel na koo bàyyi xel te sax wax nañ ni sëriñ Maam Mor Anta Sali daf ko ko féetale woon sëriñ bi nag yooyu daf ko doon sàmm ndax ndeem ñi nga xam ne dañoo doonoon wëllëre seen diggante digganteeg sëriñ Mamour Anta Sali rek sëriñ bi daf doon sàmm loolu ci ñoom rawatina nag koo xam ne daa bokk ak moom ba noppi wëlbati ko féetale ko sëriñ bi kon loolu sëriñ bi mi ko doon bàyyi xel mi ngi doon bàyyi xel bokk gi mi ngi doon bàyyi xel bokkuk lislaam gi mi ngi doon bàyyi xel teggiin yi nga xam ne mi ngi koy jàngale te moom moo ci jiitu ñëpp waaye mi ngi doon bàyyi xel wor ma ji nga xam ne mi ngi koy jàngale te moo ci jiitu ñëpp ku mel noonu nag woote woote bu mel noonu ci biir lislaam woote ko ci biiri bokkam sunu borom defal ko ci ndam loo xam ne àdduna bépp teg nañ ko bët mu ñaan yàlla <coughs> yàlla protéseel ko woote boobu ginnaawam ba lu jamono soppeeku soppeeku dara lu koy yàq bu mu tàbbi ci biir woote bi ñi ne ci biir woote bi di ak njabootam moo xam di ay sëtam moo xam di ay taalibeem war nañoo fexee xam loolu ràññee ko ba lépp lu koy tilimal wala mu di ko yàq du jaare ci ñoom kon lam dénkaane woon ca Jolof te sëriñ Abdul Xuddus moom Daarul Muhti di ko nettali mooy kenn ku nekk ci ñun rek lam ko war a sagale lam ko war a delloo ci njukkal mooy fexe ba waxuma yëpp yoon wi di ko jaare ci yow waaye benn baat wala benn image boo xam ne danañ ko sànni yoon wi tam jaare ci yow kenn ku nekk ci ñun war naa fexe ba mooy tandiku loolu li gën a métti nag mooy nga dégg lu ñuy wax ci liggéeyam bi di ko adressé yoonu murit wala ñu di ko adressé sëriñ bi muy wax joo xam ne nit mën na cee sukkandiku di wax ci yoon wi lu ñaaw mu wóor la ne yow lii mënoo koo layal ndax kii wax kat am na fu mu teg tànkam ba wax te ka wax wax ji ci biir yoon wi la bokk loolu kenn ku nekk ñun wax na ko wattandiku kon li am solo mooy nañ bàyyi xel ne jëmm la woon joo xam ne fa yonente bi alayhi salaatu salaam tegoon tànkam la tegoon tànkam. la yonent bi doon woote la doon woote yàlla la defoon muy buuram mu nangul ko nguuram wane tawxiid yu mat sëkk digganteem ak boromam yonent bi alayhi salaatu salaam la defoon muy ab yonentam wóolu ko jaar ci aw yoonam ndax man abada gayra allahi fa sa yaalamu annahu laa ilaha illa allah wa man abada allaha bi gayri sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa sa yaalamu anna muhammadan rasulu rasulullah loolu kon day wane ni mu jàppe woon yàlla ak yonent bi diggam ak alxuraan jëlale nañ ko waaye digganteem ak mbooleem niti yàlla yi nga xam ne bokk na ci fooram moom Cheikhul Khadim li cër bi di màgg-màgg keneen ku yàlla joxub cër mu nangul la ko lu way am ci sa borom nangul na la loola te wàññiwul dara ci li ko yàlla may kon nañ nangul ñeneen ñi am la leen yàlla may te du tee li ñu am ñu am ko waaye liggéeyam bi nag nañ fexe ba lu ñu mën ci protéger ko ko ci seetal ko ci sellal ko ci wane ko ñu di ko def te bañ nag bokk ci ñi nga xam ne saa bu seen kàddu jibee ñu ne déggal li murid yi wax saa bu ñu jëfee ñu ne xoolal li murid yi def te bu buñ nee déggal li murid yi wax wala xoolal li murid yi def mu doon loo xam ne ku ci sukkandiku ŋàññi yoon wi it ku koy layal da koy layal rek ngir bëgg koo bëgg yoon wi waaye nag kay wax am na fu mën a sukkandiku ba mën a wax dégg ngeen ci jamono yu mujj yi yu bare bari yu xew yoo xam ne mbooloo ngi attaqué yoonu mu murit di wax ci ñoom lu ne te dara warlu ko lu ay jëmm yoo xam ne la ñuy wax ak la ñuy def ñu ngi koy adressé sëriñ bi te loola wuuteeg li sëriñ bi doon jàngale ci tawhid wuuteeg li sëriñ bi doon jàngale ci sharia islamiyya ñii nga xam ne ñoom la tuddee bis bi kon ñi ngi leen di delloo njukkal di leen sant ci teewaay bi di leen sant ci taxawaay bi ak yëggee yittewoo gi di ñaan suñu boroom kàddu yi mu néew mu gudd liñ bëggoon a xam ne rek mooy sëriñ bi diglewul lu yonent bi diglewul téerewul lu yonent bi téerewul wuute wut ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dara léppam yàlla la yonent bi sallallahu wa sallam alquraanul karim keneen ku ne ci leneen yaa ne ci leneen ku woote leneen yaa woote leneen waaye lii mooy cheikhul xadim radiallahu anhu yàlla ñu ko yàlla fayal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu muy berndeel ki ci ruu ci jataay bu mel ni bii ak berndeel ko ci bernde yi nga xam ne suñ bàkki galo ngal ñoom moom lay gi asku askuru oo taw jioo xiraaya ilaya fii sëyri wa fii xuraaya kon bàyyiwutoon dara maa ngi ñaan bernde yi na sama dëkk yépp ba ci ñi nekk ci tukki bi ci diaspora bi askuru taw ji oo kiraaya ilay fii sëyri wa fii xoraaya kon nga xam ne sëriñ bi fa tabaarakallaahu lépp la fàgg woon lépp ci xasiida gi nga xam ne moom la taarixale màggal gi tudd ci ni muy ni mu bëgg ñu màggalee ni muy xale yi shukru bi fardin wa sunan inda uma wa inda daari ilminan kon buñ amee bis bu toll bii jagleel ko ku toll ni kii di sëriñ Bakke Ibrahima defee ko ci daaru Minam gii sëriñ bi waxam ne rek bokk na ci fi muy sante suñu borom ci bis bii kon dañuy xam ne daal sëriñ Tuubaa kenn rek la mu mel ni nag sëriñ Bakke Ibrahima doy na ci rek moom doomi mambor ay sëla ak soxna Fati Balla al Kubra moom maam Moxtaar Lumbe kon wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu maam mooy sa maam moo jur sa way jur waaye Serigne Kokki Moxtaar Lumbe mooy sa maam moo jur sa way jur bu jigéen loolu day na sëkk waajtaay ndax lislaam day wax ne doom jim bëgg nga waajal ko doo nekk ba mu juddu nga waajal ko waaye da nga koy tànnal ay wayjur yu baax ndax wayjur yu baax ci la doom ji baax mën a juddoo mu juddu kon ci ñaari wayjur yooyu bi mu tolloo ci jàng xam-xam a ah, jàng alquran ki ku njëkk a dalal mooy way juróom maam Balla Aysa ba mu noppee mu jébbal ko magam di taaw maam Balla Aysa muy Seex Abdul Xaadir mu yor ko ab diir nag jébbal ko ki nga xam ne nag Seex moom la yàlla jaarale li ëpp ci mbiram te mooy magam ju baax ji di Sëriñ Mor Anta Sali moo àggale am njàngam ba ci loxoom la bindee kaabilu alxuraan waaye jàngal ko xam-xam ba mu raw bokk ci ñi raw ci réew mi ci géeju ci mboolem fànni xam-xam yépp fa tabaarakallaahu waaye yar ko def ci moom jikko ak melokaan yi nga xam ne moom la jullit war a yor na koo xam ne nag dafa am lu lay xaar ci biir askan wi ak ci biir penc mi ci ay responsabilité mu ay ci jikko ak ci melokaan e yu kawe muy loo xam ne rek maam yi Cheikh Mouhamadou Fadil mii doon wax léegi tey muy Cheikh Moussa Ka li mu ci wax rek li mu ci bind doy na sëkk yaa saa ili an aali Ibrahima najli abibi laa ikun faima wa cheikhun aalimun taqiyun wa shairun wa warahun naqiyun nee na boo bëggee xam cheikh ibrahima mbakke moom maam balla aysa nee na mooy boroom xam-xam bu mag ba nga xam ne rag ku ragal yàlla la ba àgg ci àqatu xaati gi ku dëddu la lépp loo xam ne luy jeex la dëgmal li dul jeex te mooy sunu borom subhanahu wa taala ku sàmm la woon ku set sell la woon wa aadimun wa aamidun wa baariun wa huwa ilal xayraati xat yu shaari nee na borom xam-xam la woon bu doon jëfi xam-xamam waaye koo xam ne waxtu woo ko fekk ma ko doon jëkkante jëm ci def lu baax ak wax ko min badi ma ata minal madaarisi wa daara siitu oo likku di daarisi nee na gannaaw boo xamee ne jàng na boo xam li war a xam lépp ci daara yi itam turam siiw na ngir xam-xam bu rëy ba ak jëfe ga nga xam ne moo ci moo ci topp kon muy nit ku sell koo xam ne fa tabarakallahu e lépp loo xam ne luy war a daje ci nit yàlla daje woon na ci moom diggante mag magam ju baax ji Cheikh Mor Anta Sali nag liñ ci wax e doy na sëkk ci li mu doonoon ci moom ndax moom daf koo jàppe woon suñu Mor Anta Sali daf ko jàppe woon nit yi doom yi boppam sëñ Mbàkke Ibrahima jàppe ko wayjur di ko xool bët wayjur ndax fépp foo xam ne fu ko sëñ Mor Anta euh, sëñ Abibullahi muy maam Balla war a na féete rek ci ay taxawaay ak taxawu moo ko fa féete woon na ko fa ba mat sëkk ci anam yépp loolu moo waral fépp fu mas nekk moom la fa àndal moom la fa nekkal fu sëñ Mor Anta Sëri dëkk ñoo fa nekkal Mbàkke Bawol ja ba ca Saalum ja ba ca Pataar ba Mbàkke Kajoor fu mu mas nekk rek mu ngi nekk ak moom di ko wéttali nekk loxol day joram ci lépp sëñ Mor Anta jox ko cër bu mat sëkk digalit njabootu boppam gi ñu jox ko cër bu mat sëkki jàppe ko muy seen way dun rawatina kii nga xam ne nag mooy Seexal Xadiim e nga xam ne moom sëriñ Serigne Cheikhouna Bousso leen wax na ko Serigne Saliou daanaka wax dégg naa ko ay yoon yoon man ci gémmiñu boppam siyaare ji ko muy wax rek ma tooñ ba àgg ci loolu nee na Cheikh al Khadim waxtu wu ma saa wax sëriñ bi rek sëñ Mor Anta Sali la ci jublu waaye bu waxee sunu way jur wa rek nee na sëñ Mbàkke Ibra la ci jublu loolu muy loo xam ne kon wàccuwaay bu rëy la boo xam ne bu mu aman ci moom moo tax bi mu wootee wooteem bii itam bokk na ci ñi nga xam ne tey moom la tànnan ci lépp loo xam ne lu mu xam ne lu baax la wala loo xam ne buñ ko defee dana rekk aw yiw ñaaral na ko mu dikk ko digal mu nekk maanaam conseiller bu mayan na ko loolu ci boppam waaye sëriñ bi itam daana doon lépp loo xam ne lu muy laaj kenn xalaat la diiru mu nekk ci kaw suuf moom la jalaat laaj xalaat fonk ko lool ba tukkeem bii muy waaje tukki ci géej gi bi mu koy waajal dafa jàpp yónni Cheikh Ibra Faati ak sëriñ Mbàkke Buso ñu dem woo ko mu ñëw fii ci Touba bi mu agsee kër gi nga xam ne mooy kër gi sëriñ bi nekk ci Touba sëriñ bi daf koo génn dem kër sëñ Ndumbe kër sëñ ba Ndumbe yëkkati kër googee bàyyee ko Cheikh Ibrahima Fati Cheikh Ibrahima ngir fonk gum ko fonk diir mu fay nekk muy juróom benn weer yi itam Cheikh Ibrahima Fati mooy Cheikh Cheikh Ibrahima sëñ Mbacké Kajoor booy jiite tey itam sëriñ bi moo doon nodd muy lu yéeme moo doon woote pour nit ñi ñëw julli si foofee am na fa ñaari mbir yoo xam ne e gannaaw boo xamee ne diisoo nañu ci li muy waajal diir ba mu fa am fayal ma ko am na ñaari mbir luñ ko fa ndax dafa am bokk ci tawfiix yi nga xam ne sëñ Mbàkke Ibrahima da koo amal diggam ak sëriñ bi mooy daf doon am kas xam ne lu mu ko war a digal dafa mel ne luñ koy wax na ci mbir moo xam ne mbir mu nekk ci kanam la sëriñ bi dëgmal ko Cheikh Sëriñ Touba dëgmal ko sunu borom defal ca Cheikh Ibrahima Fati eh, Cheikh Ibrahima pour mu mu xam ko ba lam ca war a wax bu wax ko bokk na ci ñaari mbir yoo xam ne maanaa wax na ko xolool yu am solo ci biir jataay muy juróom-benn weer yooyee lu ko suñu borom subhanahu wa xamal bokk na ca xamal bu mu ko xamal ne ko may yi nga xam ne suñu borom subhanahu wan na ma ko gannaaw liggéey bii nga dëgg mën te wax ci ak man muy bari lool nga di ko séddale lenn li nga di ko séddale fii lenn li nga di ko séddale fële am na koo xam ne day bëgg naa kenn du ko ci jiitu kenn du ko ci ëppale muy mu abadu lu mee xabaar ndax bi nga wootee sa woote bi képp koo xam ne maam maaram moo la boole ak moom moo la jiitu ci liggéey bi moo ca man nangu la loo xam ne kenn nu gulul di jiitu ndax moo fay jiitu moo fay mujj te mooy man kum kum fa fekk ak ko fekk kon nag bëgg naa teraanga joojee bu agsee bu ko ca kenn jiitu bu ko ca kenn ëppale mu ne ko insha mu ne ko baneen ba ca des nag ak sarak yii di sama njaboot bëgg naa bu loolee agsee bëgg naa liggéey bii nga xam ne moom nga sung di ko liggéeyal yàlla ak rasuulullaahi ci tasaare diini islaam fexe ba ñépp di dundal sunna ak di ko dund gannaaw kenn ku nekk jànge ba xam li nga war a xam ñu yar la ba nga mel ni nga mel bëgg naa sama njabootu bopp kii bu leen ca kenn jiitu bu leen ca kenn man ci liggéey boobu ci leen jàppale ci jàngale ak yar nit ñi ak wan leen siraatul ba ca topp mooy xiiwal gii ngay séddale mu yaatu lool damay bañ fi nga ma teg ak fi nga leen teg tax bu loolee nga natti leen ca ba nga xam ne danañ ci am loo xam ne mën na leen a yóbbee ñu fuuyu wala kenn ci seeni njaboot fuuyu ba lii nga xam ne mooy liggéey bii ma bëgg kenn du leen ci jiitu kenn du ca man loola mën a jaar seen diggante ak ñoom loolu moom maa ngi ñaan loo xir xir xir bu leen naddil ba naddi boo xam ne dana jaar seen diggante ak liggéey bi waaye nag na nga leen defal teraanga ak sutura soo xam ne duñu ñàkk lenn luy tax ñu sol seen dàll tëj daara jooju ak liggéey bi dañ wuti fu ñu fekk fu ñu nekk nañ am teraanga nañ am sutura te am ak doylu waaye nag buñ am lenn luy jaar seen diggante ak liggéey bi mu ne ko defal nañ la lool beneen ba nga xam ne moom la ko mujjee dénk te loola lii ci jataay ba yàlla du jiitu buy dem ci géej gi beneen ba ca toppaat nag gannaaw bu mu ñibbisee ci gi ci bi mu nekkee Mbàkke Kajoor ci fan yooyu mu ko ganisee loolu moom ci digganteeg maam Cheikh Ibrahima Fall da ko wax rek et eh, noonu lislaam yi nga xam ne kat ñoo la songan yëg naa ne bàyyeeguñu njagam nag sunu borom dimbale na la ba mënuñoo agsi ci yow mënuñoo agsi ci kenn koo defar ba mu defaroon ku jaar ci say loxo danañu jéem a jaar ci ñaneen ñi nga xam ne njaboot lañu donte ak ñu ci dara ji ji ndar gee nag nga xam ne noon bi nga xam ne moo la sonal fa nekk ña koy jàppalee fa la ñuy nekk ay njaboot yu mel noonu dañ faa fekk ay taalibe yoo xam ne ànd nañu yow jox la sa bopp doy loo la waaye amuñu tawféex yi ak ci yow ba nga defar leen ba ñu tul ci kenn du leen mën a soppi kenn du leen mën a wëlbati kon nag bu nekkee foo xam ne amuñu kenn ku ñuy rus kon mën nañoo jaar ci ñoom ba am lañu bëgg Ibrahima Fall nag bokk na ci ña nekk ga mu nekk ndar tax na lu bare bari ñemewuñu ko te rus nañ ko te damaa yëg ne damaa yëg ne mel na ne mi ngi sa xel boo demee ba toog da ko sant mu jóge foofa gàddaay fa moog la mu fa aman ñëw fii loolu nag. laa gis ne bu amee ba kenn ku ñuy ruus wala ku ñuy ragal nekkatu fa rek loola mën naa ki moom it moo tax ma ñaan lu metti metti rek na am na am jeexit ju fa nekk ju ko may mu di fa dem ak a dellu si ngir ñu ragal mu ne may leen la loolu lépp tey dala wan taxawaay bi nga xam ne e moom laa aman ci loolu moo waral e la jiitu loola ci mooy li jiitu lii ñuy wax mooy bi nga xamee ne suñu wax ante sëriñ génn na àdduna te loola sëñ Cheikh naa bu sa am na ci junj xam ngeen bi sëñ Mor Anta Sali génnee àdduna te sëñ Mbàkke Ibra ñëw bi dëj ba jàllee ba lépp tegewaat ci yoon fekk na ci mujjug ati sëñ Mor Anta sëñ Mbàkke Ibra ci boori kokki ci ay nijaayam dafa amoon barab bu ñu ko tànnal jox ndal la bi dëj bi jàllee nag mu jàll mu mu mu mu mu wax sëriñ bi ne ko kon maa ngi delluwaat seeti njaboot ga de dellu si bi mu demee nag sëriñ bi moom mi ngi toog di ko xaar bi mu toogee lu yàgg dellu si wut nag gannaaw bi mu yëg ne moom kat sañcal nañ ko ba mel ni faf na toog foofu ah Seexul Xadim wax Seex Ibra ne ko nag kon nag nan dem jëndi ndax ak jikkam fii moom kenn doyuma ci lu may sama jëmmi bopp daal di dem am fa ab diir waxtaan ak moom ba juboo ci delloosi ba mu ñëwee mën a ko dëkk bii di Mbàkke Kajoor suñu war ant seli sos ko tey man damay gàddaay delluwaat Mbàkke Bawol tey nag jox naa la ko ci ndigalal sunu borom subhanahu wa naa ci ak sunu borom subhanahu wa ci jox la ko tey juboo naa ci sunu borom ci jox gi ma la ko jox te it xam naa ne mboolem li fi des ci lu ñu war a defal Sëñ Mor Anta Sali gannaawam nun njaboot gi lu ci gën lu ciy gën a dëppoo ak ngërëmam ak bëggam lii am du am ndax nag na nga toll ci moom ak fa nga ko féete woon ba tax na kon loola faggul naa la ne lii ma def kenn du ko dindi tey kenn du ko dindi ëllëg ci njaboot bu ñuy bu ñuy tudd di tudd Mor Anta Sali ndax lu ma am ngërëmal yàlla waaw waaw kon loola muy loo xam ne tey e, loola mooy sababus mu toog nag Mbàkke Kajoor ñu may ko jox ko dëkk ba ba buñ nee sëñ Mbàkke Kajoor rek donte Maam Anta Sali moo sant Mbàkke Kajoor de waaye xel du dem ci kenn ku dul sëñ Mbàkke yi rek ngir jëmi suñ suñu borom subhaanahu wa joojee nga xam ne jëf yi sunu borom joojee nga xam ne Serigne Touba wax na ne lii dama koo def ci ndigalal sunu borom subhaanahu gannaaw bu ma jàng amee ndigalam moo war waral itam kenn ku ko dindi wala kenn ku ca ma woon a wax dara am bokk mbokk yi maa ngi nuyu bu baax tey ziar di balu àq bu baax di bale àq di nuyoo ci turu Cheikh Mouhamadul Muntaqa di nuyu mbokk yi ma fekk yëpp dafa wax naa ne sax amul fii kàddu ndax li ñu fi jot a dégg ci ay kàddu yu rafet te ci diggante yi nga xam ne moo waral tey ñu toog fi bala ñoo dugg ci loolu sax ñu yëkkati am nuyoo bu gën a kawe bu gën a teey bu gën a sell di ko jëmale ci Cheikh Mouhamadou Moustapha bi nga xam na tey moo jiite njabootu Sëriñ Mbàkke Kajoor di ko nuyu bu baax di ko ziar te ko ñaanal sunu boroom dolli ko tawfeex dolli ko ak wér te gën ko fee yàggal bu baax te mu ànd ko ak njaboot bi yépp li tax ma wax ne amul fi kàddu mooy samay kilifa rek ñoo fi nekk sëriñ Ahmadu mi ngi nii di sunu wayjur ñi ci des di sunu ay nijaay ba ci ñenn ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu di suñuy sang nga xam ne ñoom ñooy suñu boroom dinu suñuy sang yoo xam ne bu leen neexoon tey ñu sàng lu def seen poos yu mel noonu tax na ma wax ne amu fi kàddu waaye naqanaa ci daraje ki ne ci boroom biir kër gi rek te ngeen cëral ko ci seen bopp cër bi ngeen ko cëral mën naa tax cër boobee ñu rafaatal mu ci lu tax ñu mën a waxante yéen joxale fi ay kàddu wax yi nag ni ma ko waxee léegi rafet na lool te yaatu na tamat la ne daanaka dara matu cee dolli ndax diggante sëriñ Mbàkke Kajoor ak sëriñ Mor Anta li ci mata waa wax ngeen ko ñu bokk balaacha te rafetal seen bokk ga te rafetaloon lool it seen ànd ga ki nga xam ne mooy ndaw te sëñ Mor yar ko jàngal ko mu def ko ab sëriñ def ko kilifa ba xaw ko def sax waajur ñoo ànd ko àndeen mu rafet loolu tax na sëriñ Mor ci boppam li muy doon doon kilifaam mu yëkkati ab cër ci ak njabootam jox ko ko yàlla dogal cër moom ku ne ak sa tawfeex ja nga koy dajeel mu dajeeg moom muy cër ba gën a doon muy Sëñ Tuubaa mu cëroo ko moom itam lool donte ba mu koy cëroo di ko fonk di ko téye di ko sagoo di ko yërëm di ko taxawu di ko dimbale doonte booba sax lii xew xewagut ci jamono booba dara xewagul booba ñu ngi ci cëru aada rekk lañ nekkoon waaye loolu taw feexam la bi ñu demee ba ci kanam it yàlla def lu ñu gën a dox rek mu gën a xam ne moom kat alhamdulillah kenn ëppale ko ab cër cëru na bu baax a baax a baax moom sëñ Mbàkke Kajoor looloo tax ba ñu demee ba ci kanam itam sëriñ bi ci boppam ba mu demee ba am cër yu muy joxe yàlla def na cër ba mu jox sëñ Mbàkke Kajoor ci cër yi gën a rëy ci la bokk cër boobu di cër bu rëy boo xam ne ñi jëkk a wax tudd nañ ko cër bu am solo ma nga tàmbalee ca daara ja ba daara ja xatee ta metti mu daan wut lu mu koy mbakar feggul loo xam ne bu mbooloo mu ñëwee ba jëfandikoo la jëfandikoo te yàlla dogal sëriñ bi doonoon koo xam ne daawul xëccoo daawul yàkkamti daawul gaawtu ci mbiram day tax léeg-léeg balaa ñëw sax bari ca mën a jariñoo lam ca war a jariñoo dana fekk yenn dong yi sant ndaw ne ko fuuf tax mu daan ko mbakkat feggul dara foofee la ko tàmbalee woon di wane fonkeel ga ba ñu jóge ca loolu wax nañ lu bari ci digganteem ak digganteem ak moom ñoom ñaar seen diggante ci bi nga xamee ne sëñ Moor làqu na ba mu demee ndal la te mu jëli ko te wax ko kàddu yi sëñ Xaadim wax na ko léegi jërul dellu ba mu ko gën a see mu génn daara ja jox ko ko ngir wormaal ko te loolu bokk ci aadaam jërul dellu leer na nàññi bi nga xamee ne it yàlla def na ci njabootam yépp góor ak jigéen mu séddee ko ko loolu itam muy cër bu leer nàññi boo xam ne résultat bi li ci xew li ci juddoo noo ngi teg bët loolu itam la ca dolliku mooy bi yàlla dogalee mu nekk jolof te sëriñ Mbàkke Kajoor nekk Mbàkke Kajoor te mu yëg yaramu doye digga te mu ñaaw ca njort mu yebal borom daaru mooti maam Cerno Ibrahim mu dem ci moom ca toppatoo ko ba mu làqu mu taxaw ko taxaw njaboot ga ba lépp mat mu doog a dellu siwaat kon mel na ne sëñ Tuubaa moom moog moom seen diggante ak seen ànd dafa tàmbali ci ak rafet jaar ci ab rafetaay ba mujj ci ak rafet kon loolu alhamdulilahi rabbil alamin loolu nag tax na mënees naa wax ni cër bi mu am ci sëriñ bi du cër bu yomb waaye sëriñ Mbàkke Kajoor itam yàlla baaxe ko li ko yàlla jox ci ak njaboot te nekk ci kanamu sëriñ bi ñoom ñëpp ñu nekk ci kanamu sëriñ bi waaye alhamdulilahi rabbil alamin doon njaboot goo xam ne it njaboot gu am feex la ju ci seen diggante ak seen boroom gannaaw bu ñu yéen yaree nañ leen war a yare jàngal leen nañ war a jàngale tarbiye leen nañ leen war a tarbiye ci diggante jàng ak jàngale ak liggéey ba nga xam ne ñoom ñëpp alhamdulilahi rabbil alamin foo ci geesu rek sa xel dal ca wet googee ba tax na kon mënees na tudd daara joo xam ne daara cosaan la joo xam ne du fay mukk ci kër sëñ Mbàkke Kajoor kon loolu bu fekkee am na muy dox ba nëgën si ci jamono yi ñu toll dox boobee di gën di rafet di gën di baax sëriñ Muntaxa de moom mi ngi ciy sant ca loolee weesu bu baax waaye mu ngi sant nag bu baax ci li ñu toll ndax sëriñ Moustapha mi nga xam ne moo fi nekk tey nekkal fii sëriñ Mbacke Kajoor moom yàlla def tey ñu wax ne moo fi nekkal sëriñ Touba seen ànd boobee la muy baax baax ak la muy rafet rafet bii da caa sofu rek jàll wéy ca rafetaay boobee ak taar boobee lépp li nga xam ne mu ngi koy liggéey di ko defal sëriñ Touba ci wet gu mën a doon gis nañ taxawaayam ca wetam. na mu gën a baaxee ak na mu gën a rafete ak na mu gën a selle te mu xam na ne moom njabootu sëñ Mbàkke Kajoor yëpp ñoo ko ànd ñu taxaw ci gannaawam di ko taxaw na nga xam ne noonu la gënee te la gën a baaxee kon nag moom li ci wàllam mooy e, sant bu mat sëkk bu mat bu yeesu genn cant cant googu nag dafay law di law ba agsi ci ñi nga xam ne ñoo taxawal tey jataay bii fii ci barab bii di waa Rawdu Rayaahiin nga xam ne ñoom ñoo baaxoo ñi nga xam ne ñooy njabaru Sëñ Tuubaa ak bokk yi ak taalibe yi at mu nekk ñu tànn ci kenn ngir di ko darajaale bis bu demee nii ngir di ko ci waxtaane ak di ko ci fat fàttaliku ndax xam ngeen ne waxtaan yu mel nii li muy jariñ rek mooy fàttaliku jikko yu sell yu rafet yu jëkk ya nga xam ne mag ñi amoon nañ ko te muy jikko yoo xam ne jikko yu mataroy lañu te jikko yoo xam ne it ci la àdduna di doxee te mooy dukki yi nga xam ne mooy dundal islaam te mooy dundal ak taalibe di nga xam ne ñun amuñu lu dul moom euh, kon jataay yi du mën a doon jataay yoo xam ne rek dañ fi wax ay wax wax fi ay kàddu rek dem déedéet waaye lu mel ne wax yi ko jiitu ak wax ju mel ne ji sëñ Xaadim wax léegi soññewaat ci jikkoy mag ñi ak melokaan bi ak ni ko sëñ bi bëggee ak ni ko sëñ bi dundale ak ni mu sàkkoo ñu dundale ko noonu loolu lañ mën a jële ci jataay yu deme nii kon ñi nga xam ne ñoo organiser loolu itam di waa royaaxin ci njiitu sëñ Ahmadou nii ñu ngi leen di sant bu baax ci turu sëriñ bi di leen gërëm di rafetlu lool taxawaay boobu te di ci soññee ndax xëy na ñoom yemuñu sax ci waxtaan yi rek waaye lépp loo xam ne gis nañ ne lu mat a wax la danañ ko wax ba nag waaye dañ ko mbind boole ci ngir mën nga fee bàyyi muy trace boo xam ne ëllëgati si biir nit ñi daañu gën a mën a jëriñoo ba at mi tukki ndax xam ngeen ne ay wax sax mën naa raaf mën naa mënees na koo jaxase mënees na koo euh, soppi waaye yàlla dafa dogal mbind moom dafa wér te neexatu soppi daa mën a sax kon dañ leen di gën a sant bu baax ci li nga xam ne moom la ñuy taxawee di ko taxawee ci jotaay yu mel nii di sant mboolem njabootu Mbàkke Kajoor itam ndax bi bi nga ne euh, Rawdu Rayaahiin na mbir moomu yëkkati bis bi yëkkati tur wi moom ñoom itam njaboot gi nga xam ne ñooy njaboot suñu Mbàkke Kajoor gépp jóg nañ taxaw àndandoo def benn say def benn bant ànd taxaw ci gannaaw rawdu ba lu mel nii tey mën a am ñi fi ñi ko fekke ñëpp yaakaar naa ne kenn ku ne dana am loo ci mën a jëlee ci waxtaan yi nga xam ne moom lañ ci jote a waxtaan kon loolu dañ ci dellu soir rek di sant di tudd sëñ bi di sant ñëpp di sant ni ko organisé di sant sëñ Moustapha di sant Awdo Yaxin di sant mbooloo mi ko fekkee yëpp di gërëm bu baax a baax a baax tey ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala defal leen ci defal nu ci lu kawe suñu njort tey ak ëllëg may nu ñu màggal gii ñu séenu ñu séenu ko ci jàmm mu agsi ci jàmm ñu defe ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee ba li nga xam moom li ci sëñ bi dëële nu man ca jot te it yàlla may nu bu ñu ko nangulee ba noppi mu may nu fekke waat ko ay yooni yooni yoon te lépp gën a am jàmm gën a am tawfeex te lépp gën a xéewale ñoo ngi siyaar bu baax di siyaar kilifa yi di ñaanal ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi fi teew yëpp mbokki taalibe yi ñu ngi yëkkati kàddu suñu suñu kilifa di ko Cheikh mi nga xam ne moo fi nekkal Sëriñ Mbàkke Kajoor di leen di nuyu ci aw tool ak mboolem tu njaboot Sëriñ Mbàkke Kajoor nekk Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu ngi koy nuyu ci sëriñ bi di ko siyaare di ko jox wàccuwaayam di fedd lee yeesal sunu jaayante ak sëriñ Tuubaa di ko jaarale ci moom ñu ko fi nekkal di ko sant bu baax ci barab bi nga xam ne ñi ngi ko fiy defe te biñ ko ko yëgalee mu bég ci lool xolam sedd ci guy ba mu ci ne jëwtoon ngeen may tàggu maa yéen a yem képp lu ngeen defal suñu Mbàkke Kajoor loolu yëfi sëriñ bi la kon bu ngeen taamoo fii di ko def jëw ngeen mu ciy tàgg man ngeen ko def seen baax maa yéen a ci am kon loolu ñu ngi ko ci sant bu baax di di ko ñaanal yàlla suñu doom yàggal ko fi lool te ko wér te lépp lu mu yéenee liggéeyal sëñ Tuubaa mu defe ko na ko bëggee te na ko moom ci sëñ Tuubaa ginnaaw loolu ñuy nuyu sëñ Ahmadul Badawi moom mi nga xam ne moo jiite dayo dawayaa te ñuy taxawee bis yii di ko dundale ak di ko waajale bis bu mag bi suñu kanam di bisu màggalu Tuuba di bis bu sëriñ bi woote ngir ñu sant la ko ci boromam yàlla dogal ñu jagleel ko koo xam ne wajuru sëriñ bi la xaritub sëriñ bi la soppeb sëriñ bi la taalib sëriñ bi la wajur gi def defu yàlla la xarit bi ak soppe bi sëñ bi ko bindal boppam ci mbind mu ko bindoon ne ko yaa abati yaa xalili wa habibi mbind maa ngi nii loolu sëñ bi yoo ko bindoon kon wajur gi def defu yàlla waaye xarit bi ak soppe bi moom sëñ bi yoo ko wax la boppam ne ko yaay sama xarit bi sama soppe gannaaw boo dee sama wajur taalibe gi nag pas-pasu sëñ Mbàkke moo jaayante moom it nangu dogalu yàlla jébbal boppam sëñ Tuubaa ak njabootam kon ñett kon ñeent yooyu yëpp daje na diggante sëñ Mbàkke Kajoor ak sëñ Tuubaa way juwama ab xaritama soppeema ab taalibeem kon sëñ Ahmadou mu ngeen fabee bis bii jag jagleel ko sëñ Mbàkke Kajoor ko ko Cheikh Moustapha mi nga xam ne moo ne ci bopp kër gi de ak mbooleem ay wakkam seen xol seet na ci bég nañ ci ñu ngi leen di sant bu baax di leen wax ne jàpp nañ ne def fu ngeen ko mos a def baax na dana seet xolu sëriñ bi waaye fii ngeen ko def de moom am na nañ yàq ci ne lu sedd xolu sëriñ Tuubaa ndax diggante sëriñ bi ak sëñ Mbàkke Kajoor kon bu fekkee da ngeen doon dàq bëggu sëñ bi day jëmi sëñ Mbàkke Kajoor moom da ngeen jàpp te loolu sëñ bee ko waxoon te danaa ci ñëw kon alhamdulilah rabbil alamina bi ngeen ko defee kon loolu njaboot yépp ñu ngi leen ci sant ci sëñ Mouhamadou Moustapha di la nuyoo léeg rakkam yi nga xam ne ñoo ne jataay bi teewal ko ci sëriñ Baaba Mbàkke Ngaabu toog na fi lu yàgg léegi lu jóg sëriñ Cheikh Mbàkke yow moom it ci ñi fi njëkk la fi ñu sama leen topp saan toog na fi ba bi ñuy liggéey fekk nga leen jataay ñi fi nekk ni nii di sëriñ Baaba moom sëriñ Abdul sëriñ Basiiru moom sëriñ Amaw Faal sëriñ Maam Cerno Mbàkke moom sëriñ Moodu moom sëriñ Habib sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Muhammadul Njaay ak seeni doom doom yi ci ñibbi mag ci ñi fi jataay bi sëriñ Cheikh moom sëriñ Modou gelaw Ngal ànd ak ay rakkam sëriñ Sidi ak mbooleem njabootu sëriñ Modou Gelo Ngal ak seen rakk yëpp kon ñooñu ñëpp ñi ngi ci jataay bi ak sëriñ Fallou mi nga xam ne mooy taawu sëriñ ak ay rakkam yëpp mën naa cee boole sëñ maam Thierno moomu ndax ci njabootu ko sëñ Mbàkke Kajoor la bokk ndax way juróom wu jigéen fii la bokk sëñ Omar Mbàkke Gelo Ngal moo ko jur docteur Xaadim Siddi mi doon wax mën naa ko cee boole ndax ci njabootu sëñ Mbàkke Kajoor la ndax way juróom bu jigéen suñ Amar Fall taawu suñ Mbàkke Kajoor moo kon ñii ñooy njaboot gi fi teewal suñ Moustapha kon sëñ Mouhamadou Lo Ngaabu moom it yàgg na fi ba ginnaaw timis la dem moom it ci njaboot gi la bokk ndax soxna benn Ngaabu way soxna Faati ko jur suñ Mbàkke kon moom it ci njabootu ko suñ Mbàkke Kajoor la kon ñooñu ñooy njaboot gi fi teew sëriñ Abdul Majid moom sëriñ Habibu ak sëriñ Alhaaji Mbàkke moom sëriñ Habibu ñoom it ñu ngi ci jataay ñooñu ñooy lool ci sëriñ Moustapha yi nga xam ne ak njabootam gi nga xam ne ñu ngi fi teew teewal ko fi di leen dalal fii ci seen barab bii di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi nga xam ne yéen a ngi koy taxaw ci yoon ci jaayeen bi sëñ Tuubaa di ko liggéeyal ci xam-xam di ko tasaare di xam xamle sëñ sëñ bi tamit lu ko mat ndax damay wax ne sëñ Tuubaa koo xamal ci ne sëñ Tuubaa mel mu bëgg sëñ Tuubaa sopp sëñ Tuubaa waaye dafa am ñuy xamle sëñ Tuubaa ci anam goo xam ne ku ko xamle sëñ bi ñoo ñooñu danay jéppi ña leen koy xamal ba tax duñ yëg sëñ bi nañ ko yëg alhamdulilah rabbil alamin nag yéen da ngeen a jug te xamle sëñ Tuubaa ci niñ ko war xamle mooy xamle ko ci ni ko yàlla melal xamle ko ci ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam melal ko ci ni melal boppam xamle ko ci lam doon liggéey xamle ko ci nam mu bindal boppam waxal ko boppam kon dayo doyaay féete nañ yoon wi foo xam ne ñëpp ñëpp lañ fa féete li ngeen def itam ñëpp ngeen koy defal ndax sëñ Tuubaa mënee su ko ñàkk xam waaye bari na ñu koy xamle noo ñoo xam ne nañ koy xamle wuute na ak na sëñ bi mel lool te loolu it ab liggéey la boo xam ne ab liggéey féetu ko kaw ba ngeen ko tàmbalee jamano sëñ Saaliw ba léegi téere yi ngeen ci def di ko tasaare ba wam xam-xam yi fi ñëw ci màggal gi di ko yóbbaale bari na ci ñu ci dolli ko sëñ Tuubaa kon loolu ameel nañ leen ci ak cant ameel nañ leen ci ngërëm ci tuur njabootu sëñ Mbàkke Kajoor gi ndax jàpp nañ ne ngeen koy defal ndax sëñ Tuubaa ak sëñ Mbàkke Kajoor yàlla da leen a boole bu yàgg ñuy benn ndax sëriñ Mbàkke Kajoor sëñ Maam Mor yàlla dafa dogal moom moo yar sëñ Mbàkke Kajoor jàngal bis mu woo sëñ Mbàkke Kajoor ba mu toog mu woo sëriñ bi mu toog mu wax sëñ bi ne ko Ahmadu bis nekk tey na nga xam ne Ibrahima mi mooy sa baay moom laa la féetale daal di wax sëñ Mbàkke Kajoor ne ko sëñ ne ko Ibrahima na nga xam ne Ahmadu mi mooy sama cër ci yow daal di wax sëñ Mbàkke Kajoor ne ko ahmadu mi mooy sama cër ci yow séddale naa la sédde naa la wax sëriñ bi ne ko ahmadu sëriñ ibrahima mi mooy sa bàyyi si féetale naa la moom sëñ mbàkke joor daal di wax sëñ moo ant sali ne ko ahmadu de xaw ma am na baayam déet waaye man de wóor na ma ne am naa doom ahmadu nag xaw ma am na baay waaye man moom xam naa ne am naa doom te booba li ne ci sëriñ bi ñëpp xam bëriwut waaye sëñ mbàkke joor yàlla da koo defal tawfeex ci sëriñ bawaa na kuñ naan moo njëkk moo njëkk a ci sëñ bi waaye man si ébi bi wax na ma loo xam ne sëñ Touba leen ko wax ci làmmiñam ñu dégg ko ci seenu nopp loo xam ne saxal na ne ku njëkk a jébbul sëñ Mbàkke Kajoor mënta am ndax loolu fi ma ko teg sëñ ébi bi dafa ma ne maa sëñ Omar maa mbakk Maodo Mbàkke day sama rakk dañoo mas a ànd benn bi gannaaw timis ñu ñu waxtaan ñoom ñaar ne ñun de jébbaloo ko nañ dem jébbul ci sëñ bi nee na sëñ Mor ne ko bis mu ne ko waaw man ñun dañu war dañoo dem jébbalu nee na bi ñu ñëwee sëñ Matar Sylla moo leen ubbi daal di dugg ci pic ak kees ñëwaat woo leen di leen jàll si leen nee na fi fekk sëñ bi sëñ bi donc dañu fekk ñu nuyoo sëñ Abibu nee na ginnaaw maam ak sëñ Mor tuuti sëñ Mor ne ma nii ma daal di wax mu ne ah lu doon seen tànk ñu ne ko mbàkk ji noonu dañoo ñëwoon ngir jébbalu si dina jébbal suñu bopp sëñ bi daal di muuñ daal ne ah yéen ma leen bañ ma di jébbal juddoogu daan nañ leen yéen de seen baay ba mu naan ma jébbal naa la saa bopp ak sama njaboot amagutu njaboot ba mu naan ma jébbal naa la saa bopp ak sama njaboot amagutu njaboot su ngeen mu daal cee teg daal ne loolu nag yéen ñëpp yéen a ngi ci biir yéen ñi njaboot suñu mbàkk jox gépp yéen a ngi ci waaye man loolu dama caa daal dégg ne ginnaaw mam suñ suñ am ma faal mii taaw suñ mbàkk jox mam moo ënt salee ko tudd mam moo ënt salee ko tudd te sëñ bi ginnaaw maam moo ant sëli la woote liggéey bi te sëñ bi nee na ko ba mu naan jébbal naa la amagutu njaboot kon kay lañ leen jébbalu waaw kon man loola dégg naa ci ne kon sëñ Mbàkke ba muy jébbalu ci sëñ bi ak njabootam comme maam am sëlee ndax ndax suñu amoo faal moom ne maam moo bi itam wér na ne ginnaaw maam moo ant sëli la sos yoon bi te sëñ moom moo ma ko wax ci leen seen bàyyi ba leen di jébbal naan ma jébbal naa la sax ba sa amagutu njaboot kon loolu day daal tegtale ne kon bi kon suñ mbàkke joo kenn njëkku jubli sëñ kon loolu li ma ciy wax mooy yàgg guñ yàgg ak sëñ mbàkke teel bu mu teel a nangu nangu li yàlla def sëñ Tuubaa sëñ Abibu nee na ma sëñ bi loolu lu siiw la waaye gannaaw bi soxna maam njaxa silla mi nga xam ne bokk na ci ñi nekkoon ci kër gu mag gi nettali na ma ko muy fande googu ñu fande woon ci kër gi ñoo njaboot sëñ mbàkke joo ak guddi sëñ bi daje laaj leen leen ndax reer ngeen ñu fekk booba xam naa bokki musiba yi fi nekk maa ngi sëñ sew naa ñoom yi xam naa booba jëfandikoo nañ reer ba mu jeex bàyyi njaboot suñu mbàkk yoon sëñ bi guddi sëñ bi mel ne da koo xam ci baatin te sëñ bi mayoon na leen lu maytoon kenn ndax ñoom da leen mayoon ñuy fanaan ci biir kër gu mag te loolu sëñ mayu ko woon kenn njeereem kenn dawa fanaan ci kër ku dul ñoom jéeg lañu fa nekk di ay na ma ko yàlla jégg ay tuut tànk lépp ci biir kër lañ koy fanaan may kenn sëñ bi leen reer ngeen mu ne déedéet mu doomi sëñ Mbàkke Kajoor ñu fanaan sama kër di fande loolu dara adduna jëwum jëwalu ma su ma dee as door seen bàyyi lu ma fi bàyyi war naa ci teg loxo te doomi sëñ Mbàkke Kajoor wërta nekk sama kër di fande ndax seen bàyyi tee na maa fande ba tey mooy li sëñ maam Ceerno mi doon nettali léegi daan ni leen ba ma nekkee ci daawa di jàng dañ daan def suñu wootee ne bisimilah dongo yi daw njëkkante bala ma àgg danañ fekk ñu jiwoon ndab la ba wàññi ko te man du ma jiw booba du ma àgg sax sëñ Mbàkke day njëkkante dem ñaat ci ab ñaat dajeeg man jox ma ñaat ba ñaat ba laay jëfandikoo mujj yàgg sëñ Mbàkke bàyyi loola yónnee ndàll la ndàll la kër ndeyam booba soxna Fat Jóob la ca suusal bawaay sëñ bi ne sëñ bi sëñ Mbàkke daa mujj yónnee ndàll la ca kokki ca way jógam mu jigéen ne na ko defal suusal bawaay ba mu ñëwee mu denc ne sëñ bi bu ñu wootee tee bul wuy nee na bagaay boobee moom la may jox moom laay jëfandikoo nee na am at ay at yoo xam ne li may jëfandikoo lépp sëñ Mbàkke ma koy jox daan leen kon nag woowu leen fanaan sama kër gi di fande defal ak gàtt ci guddi gi defal leen ko ñu ñu jëfandiku ci sëñ Tuubaa rekk mat daana sëñ bu daana wax ne wa bashir bi leen bi yàlla yataama dawaaman ansihim bii abaahum kullahin xam na ne sëñ Tuubaa yàlla nangul na ko lépp waaye ñaan googu sëñ yu nee na ci ñun doomi sëñ Mbàkke Kajoor gi ci la ko sëñ ci la ko yàlla nangule sëñ Tuubaa ndax sëñ sëñ Tuubaa bégal nañu bañ fàkk suñ ba fàtte suñ fàtte suñu bàyyi kon sëñ Mbàkke Kajoor ak sëriñ bi seen diggante lu yàgg la lu xóot la kon bu ngeen fa bee ko kon njaboot gi yëg nañ ko gis nañ ko sant nañ leen li ci des nag muy cantuk sëriñ bi ci ci ñi nga xam ne ñooy njaboot gi ak ñi fi teew ndax xëy na jataay baa ngi doo gudd sëñ Mbàkke sëñ moom mën nañ ciy wax ba suba te jeex kon sëñ Moustapha mi ngi sant mbooleem njaboot gi ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam tàmbalee ko ci sëriñ Cheikh Tedd mi nga xam ne mooy ñëw moom sëriñ Modou Ndiaye waaye tàmbalee ci njabootu kër sëriñ Amma Fall sëriñ Cheikh Kajoor ma ca bopp ak ay rakkam yépp sëriñ Moussa ngi leen sant di sant njabootu sëriñ Mbàkke sëriñ Amma Mbàkke Gelongal sëriñ sëriñ Ceerno ma ca bopp ak rakkam yépp sëriñ Moussa ngi leen sant bu baax njabootu sëriñ Mat Lamin ay sëtama fi nekk waaye sëriñ Baara ma nga xam ne moom ak ay sëtami ki rakkam mi ngi leen di sant njabootu sëriñ Abdul Karim sëriñ Ceerno ma ca mag ñi ngi leen sant njabootu sëriñ Abdul Majid sëriñ Bachir Roqaay ma ci mag ak ay rakkam sëriñ Moustapha ngi leen sant sëriñ Bara ko fi teewal njabootu sëriñ Ousmane sëñ Maam ma ca mag ak i rakkam sëriñ baa ngi leen sant njabootu sëriñ Habibou sëriñ Cheikhouna ma ca mag ak i rakkam sëriñ ngi leen sant njabootu sëriñ Modou Ndiaye moom laa jëkke sëriñ Cheikh Tedd moom laa jëkke woon sëriñ njabootu sëñ Maam sëriñ sëriñ Mor Talla mi nga xam ne mooy taaxu sëñ Mbacke Diop sëriñ Mbacke mi nga xam ne moo ko fi nekkal yal na ko yàlla doole ak wér kattan moom it sëriñ bi ngi koy sant di sant it ñi ngi ko bokkal ci jigéen bàyyiwul genn kër bàyyiwul ñenn mi ngi sant ñëpp di sant it njaboot yi nga xam ne ñooy njabootu kër gi di suñuy doom ak suñuy jarbaat ndax bis bii kat biñ ko dooyaa yi yëkkatee teg ko ci wax ne dañ koo jagleel sëriñ Mbàkke bi ma demee yëgal ko sëñ Moustapha bi ma sëñ Mor Bousso mi woo wax ma ko ci turu sëriñ Ahmadou ma jox koo ceeg ñoom bu ma ñëwee yëg wax ko sëñ Moustapha sëñ Moustapha dafa ma daal di wax ne bis bi mi ngi noonu seen loxo man tegaat naa ko sa loxol yaa gone yi ànd leen ko taxawu ko lu ci wax def leen ko loolu la ma daal di wax ci kanam ak njabootam nga fa nekkoon biñ dajee ma daal di fabaat lépp sëñ Sidi Mbacke moom sëñ Mahamadoon Jalaw Ngal ñu ngi koy sant bu baax ndax dama daal fab lépp tegaat ko ci loxoom ne ko samay mag de doyloo nañ ma waaye may doyloo naa samay doom te ñi fi nekk yaay yaay seen mag kon jiiteel liggéey bi sëñ Sidi jiite ko ànd ko wakkam yëpp ñu taxaw ko taxawaay ba rafet ma sëkk ba jataay bi ak si fii mel nii mu mel kon lu fi nekk ñoom njabootu kër gi ñoo ko def kon sëñ Sidi ak ñi mu àndaloon liggéey bi ñëpp ñu ngi leen sant bu baax ci tur sañ Moustapha di leen xamal ne leen sëñ bi day mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen soññi soññ gi nag ci ñaar lay jëm ci diine lislaam bi ñu amul lu dul moom ak taalibe gi ñu amul lu dul moom ngeen sax ci dàkk njaboot sëñ Mbàkke Kajoor ji loolu lañ leen xam ba ci topp mooy ngeen gën a bennal seen bopp te ne bennoo ak ànd mooy doole mooy tax itam nit mbir mën a jëm kanam te lool bis bii ak taxawaay yi ngeen ci wane wane na ko kon loolu sëñ mi ngi leen ci soñ ba ci des nag ak ñaan la di leen ñaanal fan bu gudd loolu waa ko wér bakki sëñ Tuubaa xam naa délégation yi dama ci doon bañ a fi sëñ gannaaw sëñ ji li lim na ko waaye fi ñàkk ay kilifa ngi fi teew yoo xam ne deesu leen mën a ñàkk tudd ku mel ne sëriñ Baaba Mbàkke mi nga xam ne mi ngi fi di mag di sëtub sëriñ Mbàkke soxna ànd rakkam sëriñ Cheikh Mbàkke ak sëriñ Cheikh naa Mbàkke du yooli sëriñ Mbàkke mi sëñ moo du yónni ak ñi ñu ko bokkal sëñ Maodo Mamoun Bousso moom sëñ Mbacke ñoo ñooñu ay kilifa lañ yoo xam ne deesu leen mën a ñàkk tudd ak seen kóllëre gi ñu seq ak sëñ Mbacke Kajoor ndax sëñ Mbacke nag ku ne xamoon ne diggam sëñ Mbacke Kajoor moom dañoo jox jaxasoo woon lool doonoon benn loolu nag njaboot xam nañ ko te ñu ngi koy dox ñu ngi koy fedd waxtu ne ñu ngi koy dox njabootu maam moo maam njabootu sëñ maam moo jaaga itam ñoom it noonu sëñ Abdou Khadir sëñ ji lappe mi ko jiite moom ci kër sëñ Mbàkke la bokk ndax sëñ Amam Mbàkke Jalongal moo jógee joom bu jigéen kon moom ci kër gi la bokk waaye téewul nag da ci am ñaari cër ndax foofa it yàlla dogal na moo yor baatu kër ga ànd naag délégation bu mat sëkkub délégation ci tuw njiitul kër ga ñëw fi ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen xam ne ñoom itam diggante sëñ Maam Moor sëñ Mbàkke Kajoor ñëpp xamoon nañ lu yàgg la ndax bi fi sëñ Mbàkke jógee Maam Moor Jaara moo ko taxaw moo ko jullee te it seqoon nañ seq yu bare bare te sëñ Tuubaa it boole woon na seeral leen ñoom ñaar ne sëñ Mbàkke Kajoor ak sëñ Mamoor Jaara de ñaar la jëmm lañ yoo xam ne amee luñ yàlla seen borom mi leen bind borom amee luñ mbindeef yi borom li li leen wax seen digg seen borom matal nañ ko li leen wax seen digg mbindeef yi matal nañ ko soo seere sëñ Tuubaa leen ko boole loon seere kon ñoom it ñu ngi leen sant bu baax ci teewaay bi ak këllëra bi njabootu sëñ Modou Gueye yebal nañ ko ab délégation njiitu sëñ Xaadim Gueye ñu koy sant di gërëm sëñ Jiili jaaroon na jaboot suñu aadama gi sëñ jiile waxoon na ko ñoom ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm ci tuur sëñ Moustapha di leen ñaanal di delloo ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi téwér li ma koy tëjee ci diggante sëñ Mbàkke Kajoor ak sëñ bi ci gàtt muy soxna sëy na bu Mbàkke mi nga xam ne dafa bokkoon ci njabootu sëñ Mbàkke Kajoor gu jigéen bi sëriñ bi dëkkoo woon amoon na fa ku jigéen ko ñuy wax soxna Maymuna mi ngi ci armeelu Gédé yi lañ ko denc soxna say nee daa ak suba teel sëriñ bi woolu ko ba mu ñëwee mu ne ko sëy na bu dee tey damaa bëgg sant yàlla sant la seen bàyyi yàlla daal di ab nattukaay lu mel ni ab doygu bu def ab ceeb sëñ bi ne ko nattal demal indi ak bañ waaf suñ soxna say indi ak bañ waaf sëñ bi jox ko nattukaay ne ko nattal muy natt ceeb di ci def di ci def ba sëñ bi ne ko baax na mu baax sëñ maasale ko daal ko ne ne la Aliou Seye joxub gàtt nga boole ko ak ñam yu defar ko soo nappee ñu yit ko waa daaway kaamil ñu jëfandikoo xam nga lu ma ci jubloo sant yàlla ci sëñ Mbàkke Kajoor te sant la ko yàlla ndax bii kët damaa dem ba sàq doon xooli gaa ya fa nekk ba xam nu ñu fa nekk ma dem xool xool gisuma fa sëñ Mbàkke Kajoor mu jaaxal ma ma laaj ko ne man de am na waajur woo xam ne dama ko doon seet ba xam fu mu ne te gisuma ko xaw ma nag julum ne ñu ne ma sa waajur woowu de ba sàq ak jaawukaay képp la dafay jaawoon ba mu fi jaaree la daal di jàll àjjana moom ma nga àjjana tëdd nekkut ba sàq dem na àjjana boobu sëñ bi ne waaw lan moo ko may loolu nee na ma laaj lu ma ñu ne ma teel gim la teel a sopp teel gim la teel a sopp képp moo ko may loolu kon sopp sëñ Tuubaa yàlla na ci yàlla saxal ba képp sëriñ Tuubaa ñu ngi sant yi soxna yi soxna yi fàttewuñu leen muy yor ci sëriñ bi ak njabootam gépp soxna yi ñu leen sant bu baax a baax fàttewuñu leen seen taxawaay seen yàlla na sëñ bi nangu lépp jërë ngeen jëf aleykum salaam wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di yëkkati kàddu gi ci turu sëriñ Ahmadou mi nga xam ne mooy njiitul daayiratu Rawdu Rayaahiin di kilifa gu mat kilifa goo xam ne mbooloo mi mu jiite rek wane ne moom dayoom ñu yëngu ci xam-xam bari xalaat lool nga mën leen a wuuf mën a ànd ak ñoom waxtu wu ne ñuy am ay ndam loolu doy na ci wane ko kàddoom la ñu yëkkati jëmee ko ci kilifa yi. tàmbalee ko njabootu sunu maam bu tedd yii tax ñu daje fii muy Serigne Ibrahima Mbacke radiyallahu anhu di Serigne Mbacke Kajoor wax dëgg yàlla kàddu yu ñu fi dégg jaroon waroon naa tax ñu nos lu mel nii ndax jàpp naa ne ku teewlu luñ fi jëlee da xam ne mag ñi fuñ fu wóor lañ nekkoon waaye ñu ñuñ war di fàttaliku lañ te lii dong la ci jublu bàyyi xel li sëriñ mag boo waxoon ne. ayaa xaadimal muxtaari laa tansa saxbahu fa may yansahum fal maduxu maduxu mu xattawu bu ñuy waxtaanee sëriñ Touba di ko wan nit ñi waru ñëw fàtte nag ñu mel ne sëriñ Mbàkke Kajoor ñii nga xam ne ñoo àndoon ak moom ba muy taxawal liggéey bi te mu suñu tàggoo moom jël seen njaboot jox ko sëriñ bi naq leen ci baax ak njub ba tey ñu nekk ay jum ràññi ko ci mbaax ak njub foo leen fekk ci loolu nga leen fekk kon ñu mel noonu wan ko ndaw ñi wan ko àdduna ñi wane ci taarix ay nit ñu baax wanewuñ ñu gën ñooñu wanewuñ ñu gën sëñ Mbàkke Kajoor ñu mel ne moom kon loolu bokk na ci li tax daayira bi sa sasoo ci liggéey gi muy liggéeyal sëriñ bi di tasaare am njàngaleem at mu jot mu tànn ñaar ci ñu àndoon ak sëriñ bi yàlla dogal rek ñu tànn sëñ Mbàkke Kajoor ak sëriñ Modou Gueye Jëmooy mooy duma wax sëñ Mbàkke Kajoor liñ ci wax sëriñ Xaadim Sylla ak sëñ Abdoulaye ñoom liñ ci wax kon ñëpp ku fi teew te xamu woon ku mooy kan nga jaglee luñ bis ku ko tiim ci séq ak sëriñ bi ci jikko ci taxawaay ci lim bàyyi ginnaaw ci ay njariñ muy ay muy kilifa goo xam ne tey mën nañu wax ne daaray Mamoor Anta Sali ja ci këram la des ginnaawam ñu di ko suuxat di ko ba tey jii fi ñuy taataan xam-xam da leen fa tudd ku ñu tudd ci tudd xam-xam ñoom doon nañ ci dara loolu di cër bu rëy rëy boo xam ne tax na sëriñ Axma kon mi ngi sant bu baax ndokk yàlla nag bi njaboot gi xamee loolu ba bi ñu leen ko waxee ñoom itam yitte duñ ko jox ndax nit it dana am cër mu rëy ci moom waaye yitte ja des waaye wax dëgg yàlla yitte ji ñu ko jox bis bi woo ci ñëpp it te loolu it bokk na ci jublu daayira bi bëgg mbokk yi di daje ñi dawul séq di séq ñi gëj a gise gise waaye tey gis nga bi ñuy tudd délégation yi ñii bokk sëñ Mbàkke Kajoor ñëpp tudd nañ leen ñu ànd ak mbokk yi ñëw dundal lii rek lañ jubloo kon sëriñ Ahmad mi ngi sant bu baax a baax sëriñ Moustapha di sant njaboot gi ne ci ginnaaw ñëpp di ñaan suñu borom gën leen a sàmm gën leen a dëgëral ba ndono lii ñu gën a wéy di ko mën a sàmm waaye mi ngi sant bu baax it nag ñii mu seqal liggéey bi waa daayira Rawdu Rayaahiin di ay jàmbaar yoo xam ne it waxtu wane ña ngi ci tool bi di bay màggal gi daal gën a fës rek ñu ci wane lu bari ci lañ liggéey waaye seenub liggéey. tënkuñ ko ci màggal téere yi ñu génne di ko tax taxqiq ak di ko saraa ak di ko tekki liggéey la boo xam ne waxtu la ñaŋ ci su màggal gi dikkee nag ñu tànn ci leen ni fësal ko ba ren jii gis ngeen tey waxtaan wii bokk na ci li ñuy tàmbalee liggéey bi ginnaaw suba incha allah danañ def lu mel ni kër sëñ Modou Gueye Jëmooy bu ñu àggee la 15 safar am na forum bu ñu def ci maso Imam Malik di ko seq ak réew mi ak bitim réew bu nee ba ci guddi màggal ga it am na waxtaan wu am solo wu ñu fay def docteur Khadim Siri moo ko war a waxtaane taxawaayu jigéen ci biir jàngaleem sëriñ Touba ci lu mel noonu ci la daayira bi dox kon nañ xam ne it daayira la boo xam ne sëriñ Ahmadou nee na yoonu Serigne Touba Serigne Touba moom képp ku bokk ci jabar suba xamal ne sa wàll nga ci biir ñëpp lañuy ñuy tàllal loxo it ndax liggéey bi ñëpp ci bokk ñëpp ci xaj ndax woote tasaare njàngalum sëriñ bi soxla nañ ko jamono ju ne waaye rawatina jamono ji ñu toll lii sëriñ Xaarim doon wax sëriñ Euh, seexu naa wax ko ci woote yu bari yi alxaabil wa naabil jaxasoo ba ñu bari xàmmeetuñ foofu lañ gën a soxlaa ku leeral sa mbiram nekkoon ndax lépp njub la lépp yiw la lépp njariñ la waaye coow lu bari li gëlëmal na ay nit bañ topp leen ba ña ngay loru di loru ñooñu àndal foofu nag soxla nañ ko fa kon moo tax daayira bi jël euh, yitteem yépp demee ko ci liggéeyal sëriñ ci wàllu boobu Cheikh Mamadou Mountakha mii ñu nekk ci am péncam tey yàlla di ñaan suñu moom gën koo sàmm gën koo dëgëral yàgg a teg loxo daayira bi njëkk muy nekk Serigne Touba bokkoon na ci ñi nga xam ne su màggal gi ma sànni ñëw ñi joxe seen hadiye ci daayira bi ngir ñu mën a taxaw gan yi kenn daa wóot jiit Cheikh Mountakha ba tey jii bi mu dikkee naalu réew bi mu naal teg ko ci loxo yi Serigne Ahmadou bi ak daayira bi ngir ñu taxawal université Cheikh Ahmadou Bamba bu réy bi loolu lépp di woon ak doyloo kon nañu xam ne daayira Serigne Touba la ñu ngi ci wow ñëpp képp ku xam-xam ñor képp ku mbaax ñor képp ku bëgg jàngale yi Sëriñ Tuubaa tasaaroo te daa war a tasaaroo la ko Cheikh Sidi Baba waxoon ne xéewal la a Cheikhu Ahmadu niamatun awlaha hadil xalaaqa kullaha mawlaha xéewal googu ñun ñoo ko war a jàllale waruñ ko yemale bawal di ko jariñoo adduna bépp ci war a jot li ci jot nag mooy jaare ko ci xam-xam loolu yoon woowu nag la daayira bi tànn di ci woo ñëpp di ñaan ñëpp ñu jàpp ci sëriñ xam ne ngi sant ñëpp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 salaam